ci turu maire yëpp yi nga xam ne teew nañ fi tey ak bépp responsable ak ci turu population wu département wu Koungheul surtout rawatina waa commune Koungheul ñu ngi lay wax bisimila fii ci Koungheul capitalu Bambouk ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñëpp xam nañ ne Sénégal yëpp mu ngi nekk ci yëngu-yëngu politique ngay dox développement kon ñun am nañ yaakaar ci ne ministre bi nga doon ak li la Macky président Macky Sall dénk matee nga ko bu baax parce que lim la wax mooy nga farlu ci jigéen ñi farlu ci développement fexe ba nga xam ne gox yi ak goxaan yi dinañ jot jigéen ñi ñu financé leen ñu liggéey ndax coono bi ñu nekkee ñu wàcc bu baax nga jógee Dakar ñëw région de Kaffrine ci moment yi nga xam ne dafa difficile kenn talul tey di wax affaire développement yow nga sol sa dal ànd sa ak délégation di dox développement di dox pour coono jigéen ñi Sénégal wàcc dëgg-dëgg li la Macky Sall doon yónnee mat nga ko bu baax ñu la ciy sant leen gërëm waa Koungheul dama bëgg ngeen tàcc madame le ministre applaudir ko te nag tey jii nag lépp lu ngeen fi gis na ngeen xam ne président Macky Sall moo ko waral moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy liggéeyal bu naaje moom la ñuy liggéeyal bu seddee buy taw buy naaj bu xiinee président Macky Sall la ñuy liggéeyal li mu fi defe gum li mu fi defe gum bi mu fi ñëwee ba léegi doy nañu ku la jox ndekki jox la añ jox la njogonal joxla la njogonal bu la digee reer kon nanga kon jigéenu Bambouck jigéenu Bambouck président sas nañu président sas nañu nañ jéem a góor góorgóorlu fii nii di Bambouck gis nañ transformatrice yi liñ fi liggéey dëkku mbay la dëkku agriculture la ñu nekk fii tey bu ñu bayee waa Sénégal ak waa bitim réew di ko dundee loolu lañ leen bëgg a wàcceel dañuy fexe ba nga xam ne lépp luy meññee ci mbay mi ngeen koy transformer fii di ko ambale fii di ko commercialiser fii xale Koungheul ak xale Bambouck ñu jëriñoo ko transformatrice yi ñu gis liñ ñu woon day na dal na dal na suñu xel kon ñu leen di ñaaxaat bu baax ay financement bu ngeen ko jotee du ay caaxaan dañ leen di jox xaalis pour ngeen liggéey dimbale seen i njaboot bañ nañ ba ne ministre de la femme de la famille et de la protection de la petite enfance donc jigéen la famille la njaboot la waaye tamit xale yi ñoo tax kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant nag commande commandement territorial bi surtout le préfet di sant onji ki ñu dalal suñu ministre du di di Moussa Seck di sant population bi yëpp ñi fi ñëw ak jàmm yàlla nañ fi ñëw ak jàmm ñi beeg jàmm madame la ministre je vous remercie et je félicite maa ngi leen nuyu ku ci nekk ak sa tur ak sa sant waaye ma bëgg ñu dégloo ndax dañoo am gan bu mat gan ma bëgg ñu dégloo madame la ministre maa ngi lay nuyu di nuyu ñi nga àndal madame la ministre waaye di nuyu monsieur le secrétaire d'État alma lool magat alma alma damay wax si na namm la nammoon ak bëgg giñ la bëggoon moo tax tey lii am ndax madal même Louise dang ñoo defal loo xam ne yombul waa Koungheul yëpp kontaan nañ ci yow te bëggoon nañ madame la ministre ñoo ngi lay félicité bu baax ci liggéey bi nga nekk di def ci senegaal ñi namoon la tolop bëggoon la gis torop gis li ngay liggéey ci Sénégal moo tax nag tey ñu ngi lay dalal ci Bambouck yow ak ñi nga àndal madame la ministre di kontaan bu baax waaye madame la ministre ñëw nga ci département bu jigéen ñu am jom jigéen ñu nangoo liggéey mais jigéen ñu bëgg developpement loolu moo taxoon madame la ministre tey ñu di sa ñëw te tey wane nañ ko madame la ministre comme ni ko sama frère waxee Mayacine Camara ku la jox ndékki jox la añ ba la diggee reer war nga koo gëm te gis nañ ne macha allah yaa ngi def lépp lu la war waaye madame la ministre li tax ñi gën a kontaan mooy yow da nga nekk di traduire vision président de la république. madame la ministre président daf la dénk lu am solo mooy daf la dénk jigéen dénk la famille dénk la tout tànk te madame la ministre loolu président Macky Sall du ko dénk ko amul yërmande waaye président Macky Sall du ko dénk koo xamante ni bëggul liggéey tey madame la ministre ku nekk xam na ne réew mi xat na waaye tey dangay ñëw ñëw ba Koungheul ak tàngoor wi ne da ngay ñëw seet si jigéenu Koungheul pour masawu leen coono mais indil leen sa ndimbal kon madame la ministre ñëw nga fu ñu la soxlaa. ndax li tax ma wax loolu président Macky Sall bi mu faloo dafa ne bëggatul gis benn ji bëtu jigéen xonq te nag foog naa ne loolu yaa ngi si. madame la ministre yaa ngi ci financement yi yaa ngi ci matériel yi pour femmes yi tey lii wane na ko waaye di la wax ne daal ñu ngi leen di dalal li may wax sama mbokku jigéen ñi financement yi ñi leen di indil mayewuñ ko dañ leen dañ koy jàppale jigéen ñi. ñi bëgg ku ci jot daanu dajul suuf waaye ku ko ku ci jot boo liggéeyee nga delloowaat ñeneen mën a am. madame la ministre fii nag boo fi ñëwee ñu la wax pro duñ la ñàkk wax problème gaz des tout-petits am si dëkk bi mais am ko si département bi madame la ministre. tey am na dëkk yoo xam ne communes yoo xam ne am nañ gaz des tout-petits fu mel ni euh, fu mel ni Missirah Wadène ak Lour Escale mais kenn collecté wu kenn collecté wu ko madame la ministre am dëkk yoo xamante ni tey. soxla nañ fa case des tout-petits bëgg nañ nga jàppale leen Koungheul neuf commune la di la ñaan aussi financement yi madame la ministre nga fàtt bu ci bu ci fàtte waa département bu Koungheul ndax kat ñëw bi bu ñu ko yëgoon bu yàgg waa département bi yëpp dinañ fi ñëw kon maa ngi lay sant bu baax di la gërëm yow ak ñi nga àndal merci beaucoup